arbitre bi sifflé na baa ngi noonu mbokk yi si diggante Libidor bu Grand Yoff ak Émile François Gomis Franc Libidor tournant Fallou Ndiaye mise bi 4 millions la mbokk yi il 10 avril tay ñoo ngi fii ci arène nationale Libidor mbokk yi moo daan Zambala Franc daan Elimane demi-finale Libidor Franc ñoo tase finale mbokk yi finale baa ngi noonu Franc Libidor Franc à gauche Libidor à droite Franc Franc kor na ko léegi Franc mbokk ñu wan ginnaaw Libidor lañ jàkkaar lool Franc Libidor Franc Libidor ñooy noonu mbokk yi tegante nañu bopp Franc Libidor Libidor Franc cooy làmb mbokk yi Boy Jules moo jël final lese yi moo éliminé ki nga xamante ni nii mooy Kaaw Cissé Kaaw Gourdin bokk mooy noonu di jël misam Franc Libidor Franc rofaan na léegi Franc takk ko Libidor génnaat na rasu Libidor daw na jël ko fàq na Franc ko Franc def trois appuis Libidor fàq léegi mu def trois appuis Libidor Franc Libidor Libidor jàpp na waaye Franc jàppul Libidor jël na ko Libidor jël na Franc Libidor Franc Libidor Franc Libidor Franc Libidor am na ñaari loxo ci ngemb waaye Franc jàppul Franc roof na léegi benn loxo bi libi Libidor fa mu jàpp baax na Libidor fa mu jàpp baax na Libidor Franc mbokk yi ñoo ngi fii ci arène nationale cey làmb làmba ngi noonu Libidor Franc abit atte na léegi lu xew nee na ko ñëw leen ci digg géew bi

Franc dugg na léegi génnaat moo ngi koy manœuvrer moo ngi koy manœuvrer Libidor Franc Franc ngay bëre Libidor ci nekk am nga sa loxo benn ngemb Libidor Franc mbokk yi Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production làmb jaa ngi noonu Franc Libidor ku ci nekk jàpp nga benn loxo ndengeñ taxaw di déglu Libidor daa jàpp ci sengoor yi Libidor ci sengoor yi la jàpp Franc dafa bëgg mu bàyyi Libidor Franc Franc kay puus Franc kay puus Franc moo ngi puus Libidor abit atana lu xew mi-temps Franc na ko sangoor gi abit baa ngi ak ñoom laaj na leen ku ne pare abit bi sifflé ci diggante Libidor Franc final bi yaa ngi wok Fallou mooñ fi woo tey bi di 4 millions mbokk yi jël na tànk Libidor Franc jël na tànk ba Franc jël na tànk Libidor eh. Franc Libidor bëreel Libidor bëreel abit atana abit bi atana Libidor bëreel ba abit bi sifflé bu la dóoree nga fay mbokk yi Franc kay puus teg na ko bopp di ko puus Franc Libidor Franc Libidor Franc bëgg na dem léegi Franc jël na tànk bañ Franc Libidor Franc ngay puus Franc ngay puus Franc Libidor Franc mbokk yi moo ki nga xamante ne nu mooy Elimane Libidor daan Zambala demi final ñoom ñaari tase final final baa ngi noonu Zambala Libidor wala boog Libidor Franc Libidor Franc li bi doon franc ñoo ngi naxante atana waaw jox nañ avertissement ki nga xamante ni ni mooy Libidor ko taxawal nga bëre Franc Franc koy Franc fàq na ko daw na jël ko Franc Libidor jëlal tànk ba waaye Libidor mbokk yi dafa bañ Franc Libidor Franc Libidor Franc fàq na ko léegi waaye dafa bañ Franc Libidor Franc Libidor Franc Libidor Franc koy puus Franc koy puus Libidor boo xefee di nga jël avertissement Libidor Libido boo xefee di nga jël avertissement Franc kay pousse stratégie la waaw noo mën a def ba rek def ko Franc kay pousse Libido bëreel Libidor bëreel Franc Libidor Libidor mbokk yi dafa mel ni ku sonn Libidor Franc kay pousse du ko génnee di nga jëlaat avertissement Libidor Libido boo xefee di nga jëlaat avertissement Libido dafa mel ni ku sonn mbokk yi abit baa ngi naan ñëw leen nii waaw waaw di nga jëlaat avertissement abit waat na Libido Franc Franc kay bëri lool daw na jël ko bu la wéyoon ndomba mu jeex Franc Libido Libido mbokk yi daa mel ni ku sonn Libido dafa mel ni ku sonn Franc Libidor Franc Libidor ñooy noonu ndengeñante ci diggante Franc ak Libidor ku nekk ngi jàpp di déglu sa morom Franc pousse ko léegi ba mu génn saaku yi abit bi waat ko jox nga xamante ne nii mooy Libido waaye Franc jàpp na Franc jàpp na oh atana dina ko ñëwal ci digg géew bi ko. avertissement jox nañ victoire Franc Franc jël na ko par avertissement Libidor ngi noonu Libidor ngi noonu Franc ngi noonu mbokk yi Libidor dafa mel ni nanguwul Libidor daa mel ni nanguwul